alhamdulilahi rabbil alamin wa sallallahu ala xayri xalqihi muhammadin sallallahu alayhi wa mbokki darsu bi ñu ñëw ak yéen seen darsu bi nga xam ne moom lañ daan xam ak yéen ci bulookul maraam mu mel ni ñu ngi nekkoon ci téere boobu di bulaakul di téere boo xam ne téere bu aju ci wàllu hadis la hadis boo xam ne mi ngi tënku ci wàllu fiq dooraam ak baa ngi ci baabu nawaqidul wuddoo muy bunt boo xam ne lam ciy jàngale mooy yàq njàpp waaye dooraam ak yéen bàgg ci juróom-ñaar fukkeelu hadis ak ñaar ci ko han anas simni malikin radiallahu anhu qaal kaana ashaabu rasulillahi salallahu alayhi wa sallam ala hadihi yantashiruuna alxisa xata taxfiqa ruusuhum suma yusalluuna wala yatawadda'uun axrajahu abu daawuda wa saawu daarul qutni wa asluhu fil muslim anas dafa solo mu ne kaana nekkoon ashaabu rasulillahi salallahu alayhi wa sallam xànnandooru yonente bi salallahu alayhi ala hahdihi ca jamonoom yan tashiroona doon xaarandiku alxisa gee xataa tax fiqa ba nga xamee ne ma ngay gayal di jeng ru ausum seen bopp ya seen bopp ya ngay gayal di jeng ngir gëmmintu yaa ngay nalaw di jàng di jengal doq su ma yusaloona gannaaw ga ñu julli wala yetawaddawoona te jàppuñ hadis bi axrajahu abu daawuda moo ko génne wa sanwa daaru xutni wa aslo fil muslim cosaanu hadis bi ñëw na ci muslim loola liñ cey déggee rek mooy nalew Eh, yu woyof du yàq njàpp amaana su diisee bu boobaa dana yàq njàpp waaye dana ñëw ci yeneen hadis waan aïsata radiallahu anha qaalat aïsa ci lañ jëlee mu ne jaa an ñëw na fatimatu bintu abi ubaysin ila nabi sallallahu alayhi wasallam mu ñëw ci yonent bi fa qaalat yaa rasulallah inni mraatun ustuaadu fala atharu afa adama salaat qaala allah innama salika xirqun wa laysa bi aydin fa isaa axbarat xaydatuka fa daxi salaata wa isaa adbarat faxsili anki damm suma salli ha isa moo solo hadis boo xam ne ki solo nee ne ah Fatimatu bintu Abi Xubays moo ñëwoon ci yonent bi ba mu ñëwee mu ne ko yaa rasulallah yow yonent yàlla bi indi naka man imraatun jigéen la ustuaadu koo xam ne dañ maa jurmbel te mooy damaa yore deret yoo xam ne du daggati mukk ngir ne sama pot daal daggatut. fala atharu duma mën a laabati laabatuma afa addaxoo ndax danaa bàyyi asalaatu julli xaala yonent bi na ko laabul bàyyi julli de inama saalika xamal na ko lool di la dikkal xirqun saddit la xirqun feebar la rek boo xam ne moo lay dikkal waaye nag walay si bi ay di nekkul mbërëg léegi nag fa isaa axbalat bu jublu si ay datu ko sa mbërëg fa daxi na nga bàyyi salaatu julli wa isaa at barat bu mbërëg li wanee gannaaw nag fax si lii na nga raxas xan ki ci yow suma sa lii julli mu ne ko da nga raxas dara ji rek nga daal di julli loolu nag dañ cey dégg ne kon jigéen su fekkee day gis pot fu mën a toll kon boobaa na fexe ba xàmmi lan mooy póotu mbërëgam su xàmmee përëtum póotu mbërëgam su mbërëg mi ñëwee na bàyyi julleeg woor waaye su paasee nag la ca des di feebar su boobaa na sangu na julli boo demee sax ci téere yi dañuy wax ne même bu fekkee ne mën naa séq ak boromam këram bu ñu bëggantee sax mën nañuy séq kon loolu moo ci ne walil buxaari yi ñëw na ci buxaari yi mu ne suma tawadde yi moom boo demee ci hadis ba nag ci buxaari yi moom dafa wax ne suma tawadde yi topp na nga jàpp li kulli salaati ñeel bépp julli xam nga boo seetee hadis bu jàkk bi moom fane ne faxsil li xan ki damma raxasal dara ji suma salli tegu ci julli mu ne mus wa asaaru muslim dafa julli musa muslim dafa junji laa àndoon nag yonent bi xasafaha dafa xasaf njàpp la maanaam dafa bëggoon a wax ne faxsil li xan ki dammi raxasal sa dara ji su ma tawade i nga jàpp li kulli salaati ñeel bépp julli mu xasaf loola nag nekkoo fax si lii xànk dam ma raxasal dara ji rek su ma sali nga julli mu ne kon xasafaha da ko xasaf moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xamdan loolu moo ko tey ndax lam ci jublu rek mooy ne koo xam ne kay da nga amee dara ti mbërëg joo jaxasoo gësin dara joo su daggee maanaam nga raxas dara ji rek dem julli déedéet da war a jàpp foofu dafa wane ne rek xam nga ne nit ki moom bu njàppam toje dafa war a jàpp kon loolu andi ko moo tax mu xasaf ko waana lim na bi taalibi radiallahu anhu qaal kuntu rajulan mashaan fa amartu an miqdaad an yasala nabi sallallahu alayhi wa sallam fa saalahu fa qaala fihi lwudu muttafaqun alayhi wa rasulil waana li na bi taalib ci lañ jëlee li na bi taalibi radiallahu anhu qaal mu ne kuntu nekk naa rajulan di góor goo xam ne masaan ku daa ku yomba génnee masiyu la ndax xam nga ndox yi góor di génne ñetti ndox la daaw xam lu ñu tuddee masiyu am lu ñu tuddee wadiyu am lu ñu tuddee almaniyu waaw bi juti bi nag mooy masiyu masiyu nag dafa am ñoo xam ne dañuy yomb génn ci ñoom suñ fooxee tuuti wala ñu nga seen bopp rek wala ñu banneexu jigéen lu mu tuuti tuuti moo xam dañ ko xool wala ñu raayanteeg moom sax mën naa génne ci ñoom euh, Ali ibn Abi Talib nag moom loolu la tawataloon yonent bi waaw loola tawataloon yonent bi ne damaa nekkoon nit ko xam ne daal damaa yomb génne masiiw fa amartu Miqdaada ma digal Miqdaad nag an yasal nabi sallallahu alayhi wa sallam ne ko demal nga laajal ma ko yonent bi comme ñoom léegi-léeg dañ daan xam kersa ci yenn meex Miqdaad nag ñëw ci yonent bi fa saalowu fa qaala yonent bi ne ko fii wudu la ca war mooy njàpp waaw fii wudu njàpp moo ci war bi maanaa nag machine bu génnee da koy raxas ba pare dem njàpp foofu it dafa xasaf raxas ga rek kon da ngay dem raxas machine ba pare dem jàpp waaye nag du jar ngay sangu kon machine yu ñu déggee ci ne kon moom it njàpp rek moo ci war waaye sangu waru ci muttafaqun alayhi wala sulil buxaari wa ana aïsata radiallahu anha jëlee nañ ci aïsa yàlla na yàlla gërëm ko mu ne ana nabi sallallahu alayhi wa sallam qabbala bahda nisaa'i suma xaraja ila salaati walam yatawadda axrajo ahmad wa daafuhu al buxaari Aïsa radiyallahu anha soroon nañ ci ne ana nabi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xabbala daan na fóon baxda lis lenn ci ay soxnaam su ma xaraja topp mu génn ila salaati jëm ci julli wala mu yetawadda du jàpp foofu lañ cey déggee mu ne kon njàpp bu pare fóon sa soxna loola du yàq njàpp waaye xam ne benn riwaaya boo xam ne bañ ko laajee Aïsa Aïsa dafa waxoon ne amul kenn ci yéen koo xam ne moo gën a mën a sàmm boppam téye boppam ci yonent bi bi maanaam yonent bi ni mën a téye boppam ci xeetu bànneex rek la ci xaju yéen fekkul leen comme yéen fekkul leen nag li ci gën mooy yéen kenn ku jàpp ci yéen rek bu mu jar ngay fóon sa soxnaak ya caaju moo tax sax gis nga hadis bi ahmad moo ko génne waaye wa daan foo al buxaari buxaari nee na hadis bi hadis bu daxiif la wa an abi hurayrata radiallahu anhu qaala qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam isaa wajada ahadukum fi batnihi shay'an fa askala alayhi am la fala yaxrujanna min al masjidi xata yasma sawtan aw yajida rihan axrajahu muslim jëlee nañ ci abi hurayrata radiallahu anhu qaal mu ne qaala rasulullah sallallahu alayhi wasallam yonent bi nee na saa wajada foofu bu amee mooy bu yëgee yëgee yëg ahadukum kenn ci yéen fii bat mi ci biiram say andara dara nga yëg ci sa biir gur-gur wala yëngatu wala nga yég mel ni dangaa génne galaw fa askala mu sikk xale yi ci moom nga am sikki sàkk ndax man ni euh, maanaam génn naa ngelaw wala génnewu ma ngelaw mu ne bu fekkee loolu daf laa dal bi maanaam axraja génn na minu ci moom say ul dara wala dara génn am laa wala dara génn yonent bi nee na laa yaxru janna bu mu génn minal masjidi ci jàkka ji bu mu tax nga génn jàkka ji rek continuer sa julli xataa yasma lu dafa dégg sawtan baat soo déggee nag baat bu ne tarek nga xam ne yëg nga ne loolu génn daal moom wax dëgg yàlla ngelaw la aw yëg ji riixaan xet xet ak ngelaw wala boo xet génn ngelaw xeñ la te nga yëg ne lii xeñ la ci yow la génne ah kon nag su boobaa na nga yëg ne sa njàpp toj na jaadu na ci yow nga génn jàkka ja dem nga jàppaat axrajahu al muslim kon loolu it nga déggee ci ne su fekkee nit ki biiram dafa am air muy gururu ca xaju te génnwul dara wala boog muy xel génn naa dara wala génnwul dara ñaar yooyu ngay xaar rek na nga déglu baat bu am doole muy dara joo xam ne génn na ci yow wala boog nga dégg nga yëg xet jalawal goo xam ne génn na ci yow su fekkee loolu amul rek na nga continuer julli ndax saytaane léegi-léeg dana koy def dana am benn hadis boo xam ne dana ci ñëw incha allahu taala di wane ne seytaane léegi-léeg mu def jullit loolu wane na nga génn nga ngelaw pour rek yàqal la fekk euh, du génne woo dara naka noonu waxaan talqim ni aliyin radiallahu anhu qaal qaala rajulun masattu sakkari aw qaala rajulu yamusu sakkaruhu fi salaat ahalihi lwudu fa qaala nabi sallallahu alayhi laa innama huwa al-xamsa wa sahhahu ibnu ci lañ génnee radiyallahu anhu mu ne benn de qaala wax na rajulun góor nee na masastu laal naa sakkari sama kanam sama sakkara laa laal aw qaala wala wax aw qaala wala wax rajulu góor gi yamussu góor goo xam ne laal na sakkaroo kanamam fi salaati ci biir julli di julli ba ca kanam nga laal sa kanam alayil wudu ndax njàpp dana war ci moom qaala nabi sallallahu alayhi wasallam yonent bi ne ko góor bu laalee kanamam njàpp waru ca laa déedéet la ko wax innama huwa xamal naka sàkkara boobu nga laal bidhatun euh, benn cër la rek min ko ci yow cër la maanaam laal sa kanam daal moog laal sa loxo bi baa nga laal sa tànk bi ñoo bokk xem rek ndax sa cër la rek kon loolu du yàq njàpp hadis bi axrajoo xamsatu wa saahu ibnu hibaan wa qaala ibnu madini huwa ahsanu min hadisi busra ñu ne hadis bi moo gën a rafet ci hadisi busra wa donte nag loolu am na sikk ndax su fekkee da ko laal mu baasaratan ca téere fiqi lañ jàngoon mooy nit ki bu laalee kanamam te laalee ko ci biir ay baaraamam wala mu laal ko ci biir tënk yi loola dafay yàq njàpp te loola hadis bi gën a ñëw dana ko gën a leeral waan busratu bintu safwaan radiallahu anha an rasulullah salaam qaala man massa hadis bii nag la doon wax ne mu ne hadis bu jàkk moo gën a rafet man masaku laal sakkarahu kanamam fal daa na jàpp xam sa xamsa sa ñoo ko solo wa saxawa tirmisi yi wéral na hadis bi am na xibaan wa qaalal buxaari buxaari nee na huwa moom hadis bii de asangu say in moo gën a wér ci lu mën a doon fi xaasal baabi ci buntu bii buntu bii daal mu ne hadis bii moo ci gën a wér képp koo xam ne da laal sa sàkkara sa kanam te laaloo ko bi xëy xaa idin mooy xamul diggale xamul dara xanaa da ko laal mu baasaratan te laale ko sa loxo loola bu boobaa dafay waral njàpp bu Buxaari moom li mu gëm mooy hadis bi moo gën a wér donte am na ñu wax ne bu busra bale moo gën a rafet ndax euh, li yonent bi wax ne ko sa kanam daal benn cër la ci sa cër rek mënu laa yàq ak njàpp kon loolu moo nekk ci gis nga lii nag mooy waral xuute yi ci borom xam-xam yi ñaane euh, am ñu wax ne nit bu jàppee laal kanamam du tax njàppam yàqu am ñu wax ne déedéet nit bu jàppee laal kanamam njàppam mën naa yàqu te kenn ku ne day sukkandiku ci ab hadis te hadis yooyu yëpp day nekk yu wér kon diina moo tëddee noonu wa ana aysata radiallahu anha qaal an rasulullah sallallahu alayhi wasallam qaala man asaabahu qay'un aw ruhaafun aw qalasun aw masyun falyatawadda summa li yabni ala salaatihi wa huwa fi saalika laa yatakallam axrajo ibnu maaja waaye wa daafu ahmad wa xayruhu aïsa moo solo hadis ne ana rasulullah sallallahu alayhi wasallam yonent nee na man asaabuhu képp koo xam ne jot na ko lan xëy un wëccu moo ko dikkal ci biir julli aw roxaafun wala bore aw xalasun walla gàll aw masyun wala masyu moo ko dikkal ci biir julli fa yetta wa dana ñu jàpp waaye nag su jàppee ba pare summa mali yeb ni na jokk ala salaat yi ci jullim nga na jokk jullim nga te mooy fa mu tolloon rek laay continuer woo moom fii saalika ci loolu yëpp laa mu du wax axrajoo ibnu maaja wa daafoo wa xeyroo kon nag hadis bi ñu bari wax nañ ne dayif la ku mel ne Ahmad ak keneen ku dul Ahmad dafa wax na dayif ndax li tax mooy njàpp gisuñ fu muy yàqee njàpp maanaam maanaam wëccu boog wëccu borom xam-xam yu bari jàppuñ ne wëccu day yàq njàpp bori it jàppuñ ne day yàq njàpp da raxas rek galas maanaam gall jàppuñ ne day yàq njàpp waaye nag lu mel ni mas yu moom am na borom xam yu bari wax ne bu ko nit ki génne njàppam day yàqu kon nag hadis bi su fekkee dafa boole wëccu boole bori boole itam li nga xam ne mooy tudd gàll boole ci masiyu daal di wax ne na jàpp kon dañuy bëgg wax ne kon masiyu bi rek moo tax mu wax ne da war a jàpp beneen bi itam mu ne suma li yem ni yam ni na jokk ala salaati yi su boobaa lu mel ni xay wëcc ak lu mel ni bori ak lu mel ni galas gàll yooyu moom bu dee ci maalik yoone yi mën nga koo dindi ba pare nga jokk su julli amaana bu dee masiyu moom day yàq njàpp day wala njàppam lu yàq njàpp nag day yàqaale julli kon hadis bi moo tax ñu bari di wax ne tërali ne hadis bi ni mu ko tëralee daal hadis la boo xam ne hadisu taif la waaw ndax bu doon waccu wala bori wala gàll yooyu moom mën naay jokk jullim te mooy fa julli ga rek su ñëwee mu continuer su fekkee waxut te dadduhut li nga xam ne mooy xibla axraj yooyu ibnu maaja wa an jaabir ibnu sumrata radiallahu anhu an rasul ana rajulan saala nabi sallallahu alayhi wa sallam aw attawadda u min luhumil qaala in shihta qaala atawaddau min lumumil ibili qaala naham axrajahu al muslim jaabir bun sabrata moo solo radiallahu anhu mu ne ana rajulan benn waay saala nabi sallallahu alayhi wasallam dafa laajoon yonent bi ne ko atawaddau min luhumil xanami ndax daañu jàppaat su fekkee dañoo lekk yàpp gàtt gu sew yàpp gàtt gu sew mooy nga lekk xar yàpp xar ba suur ndax dana tax nga dem jàppaat wala boo nga yàpp yàpp bëy ndax dana tax nga jàppaat wala boo nga yàpp sax yàpp nag ndax dana tax nga jàppaat xaala yonent bi ne ko insixta bu la kon gàtt gu sew daal boo ko lekkee bu la neexee mën ngaa jàppaat kon lool nga déggee ci ne rek ndax wax na yonent bi ne insixta la muy tekki rek mooy du yàq njàpp waa ji dellu waxaat ne ko atawa daw ndax danaa jàpp nag min luhumil ibili ci yàpp gélém ndax moom dana waral ma jàpp waaye gis nga foofu yonent bi waxu ko insixta daf ne ko naam waaw da jàppaat loolu tax nga dem ci fiqu Maalik sax ñoom ñi wax naan nit ki bu lekkee yàpp wu duuf sopp na mu jàppaat hadis bi axrajahu al muslim moo ko solo moo ko génne wa an abi hurayrata radiallahu anhu qaal qaal nabi sallallahu alayhi wa sallam man xasala mayitan falyaxtasil wa man xamaluhu falyatawadda axrajahu ahmad wa tirmisi wa asanahu wa qaala ahmad laa yasiru fi asal baabi sëy abi hurayrata moo solo mu ne qaala nabi sallallahu alayhi wa sallam yonent nee na man xasala mayitan ku sang niw wala yaxtasil na dem mu sanguxaat waaw yow mi sang niw bi na sangu balaa ngaa julli wa man xamaloo ku xeneen niw yóbbu ko bañ denc ko fal yatawadda na jàpp hadis bi axrajahu ahmad wa nisaa'i wa tirmisi wa asana wa qaala ahmad nag mu ne laa yisiwu xaasa baaba ci bunt bi seen dara <coughs> baal mu bunt bi dara wéru ci luy loolu mooy képp koo xam ne dangaa sang niw fal yaxtasil na sangu ndax bu fekkee da ngaa sang niw te niw bi mën naa am mu amee woon jànnaab war a sobe su mag nekk ci ndaw sobe su di fettax ci sa kaw yaram yi ah nga dem rek jàpp noonu julli mën naa am sa njàpp li mën doy waar ndax sobe si nga xam ne fettax na ci yow kon lay tax nga set mooy lañ bëgg rek mooy nga dem sanguwaat moo tax boo demee ci xalil sax day wax ne wanu di ba xaslu eh, xaasilin sopp nañu sangu ku sang niw ba pare nga dem nga sanguwaat loolu lañ sopp ci yow Euh, waman xamaloo ku ko xeenu nag fal yettawa daa ni jàpp ndax nit bu ko nit xeenoo tiit googu muy tiit euh, nga xam ne day tiit a tiit ba dootu fa nekk mën naa xam sax bu boobaa mu génne ngelaw te du ko yëg génne ngelaw ba nga xam ne ngay ngelaw nag te mën doo ko yëg loola tax nag ñu ne kon képp koo xam ne xenu nga niw war na soo demee nga yeesalaat sa njàpp balaa ngay julli hadis bi ahmad génne ko nisaay tirmisi waa sanawul waaye ahmad moom mu ne wérut ndax lu tax nit mën naa sang niw te xay na ndox ma du la fettax fettax goo xam ne wala nga cee takk-takk guy waral sangu waaye nit mën naa xéwénu nit itam te du danaa ànd ak xelam ak sagoom ba nga xam ne euh, dégg nga de euh, dara dara dara lu génn ci moom war na koo mën a yëg kon nag soo xeenoon nit te dara yëg dara génn ci yow ah kon it bu boobaa te yaa ngi yaa ngi yëg ne yaa ngi ànd sa sago tiituloo yenn tiit yeeg yi kon bu boobaa dara lu la ci war ñu foofu rek lañu sukkandiku ku mel ne Ahmad ne kon bunt boobu dara yoru ci bu ko xam naa kon dañuy euh, wala boog ñu indi bayit bi incha allah ñu indi hadis bi tënk foofu suñu darsu hadis bi ki ko solo Abdullah ibn Abi Bakrin radiyallahu anhu la mu ne anna fil kitaabi lasi katabahu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam li Amr ibn Hasmin allah yamasal qur'ana euh, ila tahiran rawahu Malik mursal wa waslu nisaa'i wa ibn Hibban wa mahlul Abdullah ibn Abi Bakr moo laajoon yonent bi mu ne mm, radiyallahu anhu mu ne ana fil kitaab yi nekk na ci téere bi àlla téere ba nga xam ne katt boobu mu kitaab foofu nag leetar la ci nangu leetar ba nga xam ne katt boobu rasulullah sallallahu alayhi wasallam yonent bi moo ko bindoon li Amr ibn Hasmin moom la ko bindoon daf na ko woon ca leetar da caa bokkoon mooy su ngeen di jàng alquran allah ya massa bu kenn laal alquran alquran ila taahira ndare ko laab alquran daal ku koy laab laal daal ku rek ngay doon hadis bi Malik moo ko solo mu nekk hadis mursal waaw wa wasaluhu annisaa yi wam nu xibaan waxoon ne nañ xadis bi maxluul la xadis maxluul la mooy xadis boo xam ne xam na tuuti ab sikk su ko defee daal waaye loolu lu wér la ndax yàlla moo waxal boppam ci alquran ne euh, laa yamassuhu mu mutahharuun téere bii daal téere la boo xam ne kenn du ko laal lu dul koo xam ne da ngaa laab boo demee sa borom xam-xam yi gis nga teqantel gu bëree bëree bëri dañ ko ci indi ci laal kaamel ak la caaju su ko defee kon xam naa darsu foofu lañ koy tënk lépp lu ci nekk njuumte yàlla na yàlla jéggal ma ko. jéggal leen ko yéen ñi koy déglu lu ci nekk yiw yal yàlla boole ma ko man ak yéen yàlla defal ñu jàmm defal ñu tawfiq defal ñu taysiir defal ñu amaana defal ñu shahadatu daaree ñu musal ñu ci ndog ci barki yonent bi sallallahu alayhi wa wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala